waaw nañu door ak le témoigné mi xëy ñëw ñun ci kàddu yi Abdoulaye Wade yu mu yëkkati ci conférence boo xam ne ñooñu Parti démocratique Sénégal yi ñoo ko doon def ca diwaanu Paris yéenekaay bi nañu moom Wade dañ ko faa invité woon euh, foofee la yëkkate yi la kàddu sàkku ci askan yi ñu jug résister wu ci régime Macky Sall ak ni nga xam ne noonu lay doxalee ak ñoom Wade dem ci sax ba gis ne Sénégal gi mu fi bàyyi woon ak gi muy gis jamono ji du benn ndax Sénégal bi démocratie bi dafa dellu gannaaw te Macky Sall mi ngi jëme nit ñi ci réew moo xam ne dictature ci lay wéy la turbine moom it loolee la xëyee kaddu yi Abdoulaye Wade moom turbine jël ci yile kaddu muy résister à l'oppression maanaam ku jëkk politique gi doon def manifester te ñu bëggoon leen ko aaye ñenn ñi ñuy xañ seen liberté démocratie bi delloo gannaaw gis-gisu Abdoulaye Wade góor na ko gaañi bañ loolu ay kaddu la yu mu yëkkati la Sénégal moom it xëy ci dellu soir xëy ñu xamale Abdoulaye Wade euh, lu aju ci Euh, lii di euh, démocratie bi mu ne dafay dellu gannaaw lépp wàdd bëgg na gaañu jug wax ak régime Macky Sall Walfadjri moom it daanaka foofee la xëy génn mais moom leneen la gis mu di ñi ànd ak Abdoulaye Wade Wade mi ngi leen di gën di dool doole Wade mi ngi leen di kañ Wade mi ngi bëgg ñu góorgóorlu ngir taxaw nee na it régime euh, maanaam république bu am solo bu rafetoon la fi bàyyi mais loxoy ci cuune la ko bàyyi moo tax république bi aw na yoonu yàqu na ci li mu ne bañ leen ñu leen di noot waaye nag bu leen ko def ci désordre Abdoulaye Wade ak li mu ne askan wi dañ ko abandonné mu jaaxle xamul fan lay teg tànkam nee na lu aju ci ak nee bi mu xëyee démb dafa yëg nit ñi dañ koo tàggee moom Abdoulaye Wade moo wax loolu ci internet bi la ko gis moo tax ci conférence ba nee moom deewoon na waxe Abdoulaye Wade la beneen yéen muy Le Soleil ñëw ñun du ci xëtamu njëkk waaye la ci suufa suuf Sud Quotidien dellu si waat ci lii la dikkee mu di Macky Sall na HCCT mu di au conseil collectivité territoriale tey jii kon la ñu koy samp Ousmane Tanor Dieng moom la ñuy def kon mu jiite ko moom Tanor mi ngi ci enquête yéenekaay rubrique tel quel moom euh, la yéenekaay bi xëyee Tanor moo di kan mooy président au conseil collectivité territoriale le boss noonu la ko enquête xëy euh, tuddee yéenekaay bi di le quotidien gis te leneen le monstre froid maanaam ndox mu sedd moo xam ne day rey ay teen ci gàttal nit la koo xamante ne ji ku jaram moytu la moom Tanor ak doxalinam mi ngi laaj ci Tanor mi fexe ba ñu def ko njiital au conseil collectivité territoriale ndax tegul gaa yi xel mu di Macky Sall ak waa këram ne analyste politique yi li ñu gis mooy loolu njariñal Tanor la waaye du njariñal Macky Sall du njariñal waa këram ñu dem écurie Fass ak observateur mi fa xëy ngem boo tey ji Gris Bordeaux le tigre de Fass moom li yéen a kaay bi séqal waxtaan bu bari bari na ponk yoo xam ne Pape Gris waxtaan ne ko ak wàllu observateur